je tiens à vous remercier en tant que vous, de journaliste, l'ensemble des, des, des qui sont moi. Euh, comme vous le savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, euh, notre mouvement d'abord c'est un mouvement de développement et social. On est là pour le bien-être de la population. Euh, comme, vous le, comme vous savez, l'idée est venue en fait, euh, bon, nous comme on est social, euh, chaque jour que Dieu fie on reçoit des centaines de demandes d'aide. Hein, d'intervention juridique sur le plan gynécologie, sur le plan ophtalmologie. Bon, comme vous le savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, euh, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très fier d'être Thiessois d'abord, et qui pense beaucoup aussi à mes, bon, frères, sœurs qui sont là, à mes tantes. Bon, j'ai décidé de faire cette consultation gratuite quand même. l'idée est venue, ça fait même pas 4 jours. Hein. J'ai remercié d'abord le beau parce que tous ceux qui font la consultation, c'est des Thiessois d'abord. Je à le préciser, c'est de Dakar, bon, j'ai tenu ça à de travail. Euh, bon, effectivement, bon, c'est la conscience importante. Euh, comme vous le savez, aujourd'hui, on a fait une consultation, mais d'abord, ce qui me fait peur, on a, on a des suspects un peu, un quand même. j'ai même dit à, au gynécologue que vraiment, est-ce qu'on ne peut pas même les amener à la clinique euh, Parce qu'il y a certains suspects qui sont un peu, un quand même. Ils sont plus de personnes. Donc, vient en son heure. Donc, euh, j'ai toujours l'habitude de dire, euh, le mouvement Ansou Sénégal, d'abord, c'est un mouvement, un allié du président public, et c'est un mouvement d'abord pour l'émergence de la ville de Thiès, et pas à Thiès, même à Dakar aussi, il faut le dire, partout au Sénégal. Euh, a toujours aussi l'habitude de le dire, c'est un mouvement qui va être toujours proche de la population, un mouvement qui est là pour être d'abord l'ambassadeur de la population, être d'abord l'avocat de la population, l'avocat des, des, des, gens de la région de Thiès. Effectivement, comme vous le savez, parce que je pense que d'abord la santé n'a pas de prix. Euh, dès le début qu'on a commencé, nous on a commencé d'abord à d'abord investir dans les hôpitaux, dans les postes de santé. Parce qu'actuellement, là, je vous dis, on est à 2500 de santé distribuées dans la commune de Thiès. Parce que d'abord, je tiens ça, je remercie très bien le président de parce que c'est lui qui a évité de créer la couverture euh, <laughs> universelle. Donc là, j'ai dit que d'abord, c'est un grand euh, remerciement au président public, parce que c'est lui, l'idée est vers lui. Donc, euh, comme vous le savez, que nous, notre objectif, c'est dans la, être dans la santé, dans l'éducation et dans le, dans le sport. Et vous comptez prendre ces cas prendre en compte ces cas-là euh, Effectivement, comme vous le savez, euh, parce que vous savez que Thiès, euh, vraiment, c'est une ville quand même un peu dure quand même. Il faut dire que, voilà, j'ai dit tout de suite à un gynécologue de me faire la situation. Parce que là, actuellement, on est à 50 cas pour le moment. Il pas de problème. Dieu, merci Dieu est grand. je vais prendre ça en charge. D'ailleurs, là, je vous dis que j'ai même contacté une clinique de la place. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Dès il va commencer à faire les analyses, à traiter les cas. Parce que c'est des, des cas un peu critiques. Hein? Bon, c'est des cas un peu, un peu, un peu suspects. Bon, donc, euh, et puis c'est des grandes dames aussi, il faut le dire. Euh, c'est des cas un peu suspects, il y a même des cancers. Donc là aussi, je peux permettre à des mamans, des sœurs, Euh, rester dans ce cas. Bon, j'ai dit, écoutez, moi d'abord, je vais prendre mes responsabilités. S'il faut même, vendre ma propre voiture, mettre dans la santé de la population de soir. Bonjour, c'est Adjane Gonepouy, technicienne supérieure en ophtalmologie au centre hospitalier Roi de Guédiawaye. Alors, vous, êtes, euh, vous avez débuté les consultations Quel est le constat aujourd'hui Alors, le constat, c'est qu'on a beaucoup de pathologies en ophtalmologie. On a

Euh, pour les lomboconjonctivites, c'est plutôt lié au climat. Hein, parce qu'on est en Afrique, le climat est chaud et sec. Donc euh, beaucoup de gens souffrent de ça. Pour les cataractes, c'est une pathologie du troisième âge. Donc euh, à partir de 50 ans, il y a la cataracte qui débute. Bon, euh, c'est ça, c'est la, c'est la pathologie du troisième âge. Pour les risques de réfraction aussi, c'est des, des corrections, des myopies, les amétropies, la plesbitie qui commence à partir de 40 ans. Massivement, massivement, parce que déjà à 9h, quand on était là, la population était là depuis 4h du matin, 5h du matin, ce qui est un indicateur très important pour signifier euh, la population, le besoin qu'ils ont euh, de ces journées euh, que le président Abépignan a l'honneur d'offrir à sa population. Euh, donc, quand on dit consultation publique, c'est le rush, c'est la rouée, parce que la conjoncture, euh, on traverse des périodes très assez dures. J'ai tout de suite eu une dame qui m'a dit que son ordonnance là sous son oreiller depuis presque une année, euh, qu'elle ne pourrait pas honorer à cause des besoins familiaux. mais qu'elle est très satisfaite aujourd'hui de pouvoir obtenir ses lunettes et d'avoir une plus bonne visibilité. Oui, un geste à saluer, et tout simplement alerter la population thiessoise que le président Abidjan est très conscient de leurs problèmes et de leurs soucis et qu'il est à leur chevet, à leur écoute, à leurs besoins aussi qu'on s'y mette nous tous et c'est le Sénégal qui y gagnera. En fait, on a commencé depuis ce matin. Euh, on ne peut pas donner les statistiques pour le moment, c'est encore tôt parce qu'on vient juste de commencer. Mais je peux dire qu'on a quelques cas suspects qui seront suivis et traités à la clinique, euh, sous l'égide bien sûr du président Mouchenia, qui a dit qu'on peut les suivre là-bas. Il va prendre toutes les charges pour ça. Et c'est quoi les cas Les cas suspects, par exemple, c'est suspect du cancer. Maintenant, après avoir fait des des analyses plus approfondies. Ça pourrait être le cancer, comme ça pourrait ne pas être. Mais pour le moment, on les considère comme des cas suspects. maa leen di remercier bu baax yéen yéen journalistes euh, yi man li ma faral di def euh, toujours bu ma toogee man ñu ko xam nañu Habib Niang n'est pas violent man du ma dugg si ay détails man yëpp lu jëmle dëkk bi kanam rek moom mu ñor du ma dugg toujours wax ci ma sama ma demb idée bi automatiquement c'est venu juste dama toog euh, sama xel nekk ci. parce que bu ñu xoolee toujours man weekend bu jot maa ngi fi avec la population maa ngi fi ak sama ay militants sama ay sympathisants sama am di jàmm bon ñoom tout le temps je vois que euh, lu muy ëpp jot si wàllu social si wàllu santé bi la président war naa ñu opération indi nañ ma keroog benn facture bu xam ne de 5 millions pour opération juridique. dama am di millions bu bu à 10 laa koy jëlee quand même <laughs> je pour le faire. automatiquement bi ma demee j'ai réfléchi ma ne moo tiens écoute j'ai appelé monsieur j'ai la présidente ma naa ko assinement ça fait juste ans au ma def benn boo xam ne aussi la zone nord parce que zone nord laay milité wu euh, si loolu ma décidé gis ay médecins waxtaan ñoom yàlla def na sax médecins yi c'est des Thiessois heureusement Dieu merci euh, bi may waxtaan ñoom ñu ma pare nañu ko def yëpp ma ne yëpp lu si war a jël en charge euh, ne dañ leen bind te jot na leen CV gratuitement actuellement lu vous dit on a consulté 300 personnes consultantes en ophtalmologie mais si wàllu gynécologie aussi c' est important parce que am na lu ñu jot suspect ay ay virus yu xam ne gis nañ ko ay jigéen donc pour dire que santé amul amul fay donc man loolu tamit en tant que sama yaram sax da kon permettre may taxaw di bàyyi sama ay jigéen am nañu cas yu mel noonu euh, donc bu ñu léegi lañ wax ni ma léegi comment on va faire pour les cas ma ne ko jaral na ma sax man ma jaay sama sama alal pour def ko si sama askan parce que lii mënu ma ko concevoir si loolu bon man wax naa leen ma ne leen léegi contacté naa benn clinique en place ma ne leen cinquante cas yi ngeen jé ngeen ngeen d' abord ngeen suspect yi am cinquante pour commencer cinquante cas xaw ma cent la xaw ma kii ma leen man gëmm naa jaral la ma sax ma jaay sama oto jaay lii ma yore sama kër sax daf ko si santé sama njaboot parce que ñii sama ay njaboot nañu bon fu ma woote ni wuyu ma et lu ñu am lu ma am ñoom la moo tax euh, cinquante yi boobu finalement gis naa benn clinique mu ne ma yàppat la Euh, dinañ ñëw à partir de lundi defal les analyses ñu jël en charge bala affaire bi di law bu lay musiba la baaxul parce que santé lu am solo si doomu adama et puis aussi tamit euh, benn tamit euh, si wàllu mutuelle de santé carnet yaakaar naa ne cee Thiès ñëpp xam nañ tey jox naa fi ay junni junni carnet mutuelle de santé jox naa leen ay Thiès pour lan parce que man je tiens beaucoup à santé parce que ku amul wërgu yaram amoo dara nit mu ngi dox di dem di dox fekk mu ngi ànd benn jàngoro bu xam ne kenn xam nu mel ñun nag ànd soxla Sénégal euh, d' abord euh, je tiens beaucoup à le président Macky parce que tey bu dul woon moom tey dina gën a métti si ñun ñuy notre mouvement parce que on est un président d' abord bi santé bi tey aidé na lu bëri bëri si wàllu euh, dëkkandoo si wàllu région de Thiès bi tey. wër gi yaram quand même bokk na ci pàcc bu yaatu boo jagleel sa wàllu programme politique. waaw man li may faral di wax rek man dama am ñetti ñetti de parti sama mouvement ñetti devis la benn bi mooy lan mooy santé éducation. ak social boo waxee social sax wax nga santé je tiens beaucoup à la santé dama dama patriote sa santé yoo xam ne sama dëkkandoo sama ay am di jàmm parce que boo xoolee chaque chaque weekend man bu àdd àjjuma jot rek maa ngi sama ay sama ay nit sama ay militant fu munti jot gis ngeen loolu ça fait des années xaw ma élection jot na xaw ma élection jotul saa yu ma ñëwee li ma njëkk a gis rek mooy ay ordonnance dama def analyse dama war a def li président ba tiit naa sama yaram lii lii lii ma ne non loolu sama nit sama mbokk sama famille bokk loolu moo gën a tax tamit man ma gën a santé si loolu si social tamit gis ngeen loolu di mel si wàllu social établissement yaa ngi ni tey fii ngeen toll ni tey camp bi maa fi def camp bi ngeen maa fi def courant école bi école boo xam ne tey kilifa yu bëri jaar nañ fii amuñu courant man maa fi indi courant bi salle yu bëri donc pour dire ñun ñun liñu ñun diñu waxtu ñun on est des on est des yaakaar naa wax amul njëriñ lu amul njëriñ mooy jëf moo am njëriñ en fait tey dañ fi ñëwoon pour jàppale monsieur Niang euh, si consultation gratuite mu doon def man je suis là avec des collègues sages-femmes ñuy def euh, dépistage cancer du col en même temps consultation ko donc euh, bi ñu commencé suba ak léegi gis nañ fi femmes yu bëri euh, mais mënaguma wax nombre bi parce que n'a pas encore fini en tout cas ci ñu jot a gis gis nañ ci ñoo xamante ni am na seen col am na suspect que ni y a un problème problème bi ndax cancer la ndax du cancer mënaguñ ko wax il va falloir faire des analyses yeneen yu gën a xóot donc monsieur Niang les a pris en charge pour que ñu yóbbu leen clinique vision Kumba bi nekk Thiès il va prendre toutes les charges ñu mun leen suivre si jamais cancer la ñu mun leen traité incha allah. waaw man maa ngi tudd Adja ngoone Ngone Pouy technicienne supérieure la en ophtalmologie hôpital bu ñuy wax Roi Baudouin Guédiawaye mais Thiès laa juddoo bien que Dakar laa yaroo mais euh, Thiès laa juddoo donc euh, bu ma waa Thiès woowee aussi damay am mbégte pour ñëw wuyu leen. bi ma président woowee tamit ni ma dafa am journée médical ophtalmologie bu mu bëgg def Thiès kontaan noonu naa ci ñëw participer ci ah euh, ñëw participer ci euh, parce que ophtalmologie dafa nekk besoin boo xamante ne ni lu patent la lu nit ci soxla aussi moom itamit xam naa ne il a été très sensible à ça parce que il a eu la demande donc moo tax mu ñëw tey offrir leen journée bi nii. Ah, ah, population bi ñëw nañ wuyu si euh, xëy am na yenn feebar yu ngeen fi euh, nemmeeku ndax ñi ngeen jàpp ngeen ne ñi fi ñëw ñëpp tey mën nañoo faju ci. waaw population bi wuyu si nañu am masse parce que ñun déjà bi ñuy agsi 9h15 fekk nañu ñu nekk fi depuis 4h du matin muy indicateur bu foor bu lay wan ne nit ñi soxla nañ ko. soxla nañ ko euh, soxla nañ faju soxla nañu lunette soxla nañu ñu xoolal leen seen i bët. te li ngeen def suñu kéem lay kàttan fekk nañ ñu listé 200 malades peut-être ñeen fukk def naa mun ma ko wax loolu la ñu ñu ngi ci sunu cinquantième malade mais dinañ def suñu kéem lay kàttan pour satisfaire ñëpp aussi bien en besoin de lunettes qu'en besoin de médicaments incha allah rabbi. yan genre feebar yi ngeen waaw yi ñu gën a nemmeeku mooy wànnent yi nga xam ne dafay ànd ak ay laas wànnent yi nga xam ne dafay ànd ak xasan-xasan ci bët yi ñu koy wax L7 euh, cataracte yi nga xam ne feebar yi mag la yi nga xamante ni boo xasee ba am juróom fukki at dafay tàmbali muy presbytie bi nga xamante ni aussi daf lay dab boo amee ñeent fukki at pour euh, booy xol lu jegeek yooyu ak euh, myopie yi ak amétropie yi euh, yooyu lañ fi gën a nemmeeku pour le moment. Mm, fajute doo fay dara taxawaay bi xanaa rafetlu ngeen. waaw rafetlu nañ ko rafetlu nañu parce que nit ci soxla nañ ko. parce que maa ngi ci taseeg léegi nit koo xam ne vraiment mu ngi woon ak ordonnance sam njege mm. naa yoo ko lu tollook at ndax daf ko laajte ñu wax ko njëg gi. mu wàññeeku ndax nee na xëy na lekk ak naan la tal mais tey fexe nañu yàlla dimbale na ko ba mu jot ci verre yi nga xamante ni président jàppale na ko population pour ñu am ko ba vraiment am na mbégte te dina tax aussi dina yokk neex-neexu dundam parce que ñëpp xam ni la vue c'est la vie